li ci tali bi ak euh, Mouhamed Samb Mouhamed tey dégg-dégg bi neex na noo def ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa a leen di ziar baax soxna Fadi tey. jërëjëf Mouhamed tey Cheikh Tidiane dafa indi masque bi ba ci bëccëg. Ah. waaw ah, wax de bu bële bi dey bu bële waaye nit ñi dañoo amoon impression ni moom rek ngay takk. benn waaye waaw benn melo bi bii day baax na ci rax ko. sérieux sérieux benn masque xam nga dafa amoon moom loobu masque Modou Fall est que du woon chaque jour benn masque bu bulal mais comme benn melo la gars yi jàpp ne benn masque la rek day tooñ yow xam nañ ne ku su ku jaaxle masque bu ñëwee nga jox ko Mouhamed Samb euh, yaa ngi foire waaw maa ngi foire soxna Fatou yi plus précisément fii ci euh, diggante bi dox diggante pont nord foire bi jëm euh, fële ci foire bi Euh, actuellement nag gis nañ ni tali bi boo xoolee xaw na jafe tuuti tuuti ci ñi nga xamante ni ñooy jugee euh, parcelle ñu jugee Patte d'Oie fii war a mun a jëw jël pont bi euh, daal di yegg fii ci foire bi bu ko defee que ñoom VDN bi la ñu bëgg a daal di mun a yeggali seen yoon mais xaw na jafe tuuti tuuti ndax li ñu nemee ko moo di fii nga xamante ni ci la oto di daje nekk benn benn benn fekkee mën nañ ko tuddee échangeur pour ñi nga xamante ni dañuy jéem a dem Yoff yaa ngi koy gis nii ñii ñooy ëpp chance mooy ñiy wàcc jëm Yoff mais ñii di jëm foire bi dafay jafe trop si ñoom euh, loolu la nemmeeku parce que embouteillage bi fi muy gën a xatee mooy à partir de huit heures du matin instant bi huit heures passé na ba tegal ay simili moo tax gis nga ko actuellement si tali bi nii du du yomb si ñoom surtout que ñu ci euh, début de semaine bi naam sax weer wi xaw na commencé sori tuuti tuuti ci Cissé ni mel ne Abdoulaye Cissé mais quand même yaa ngi raam ndànk-ndànk di dem ñoom sax embouteillage bi xaw na takku li gën daal moo di. bu ko defee ñi nga xam ne dañuy nar a jaar si mm-hmm. ñu jël yoonu yopp waaw pour ñi nga xamante ni ah, xëy na beneen bi nekkul seen option mm-hmm. ñooñu daal ñooy ëpp chance tuuti ci soxna Faty leneen tam lu ñu moo di mesure de restriction yi nga xamante ni mm-hmm. jëloon nañ ko ci wàllu transport bi ah, ay bës yi weesu gis ah, ñi nga xamante ni ñoo di euh, chauffeurs yi ñoom ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax baax ndax nemeeku nañ fekkee ni am na ñett ci oto taxaw pour bañ a citer rek mooy de transport bi ban façon la gis nañ ne daal nit ñi ñu ngi sàmmoo masque yi mm. place yi leen autorisé yi tamit bu baax soxna Fatou xëy na jamonoy nawet dañ nekk moo tax xëy na mm. euh, embouteillage bi mën a yomb ndax tali yu bari xam nga ni fi ne mm. day yàqu ak ndox mi mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ne moo di situation bi tey fii euh, ñuy wax ak yow soxna Fatou yi nekk ci foire actuellement jërëjëf euh, Mouhamed Samb li ci tali bi masque yooyu ni nga ko waxee ku ko ci deful rek su ko defee bu la fa takk dari fekkee sàllaaw li nga war a fay di nga ko fay ñu lay ñaanal une très bonne journée ensemble la woon ci li ciy tali bi bu mel ni euh, connexion bi dafa daw mais l' essentiel dégg ngeen ko dem beek dikk bi tolluwaay bi mi ngi nekkoon ci foire léegi léegi euh, dañuy dem ci point corona ànd ci ak Cheikh Diop.